waaw xanaa am mbégte lool ñëw euh, tey euh, teewal si fii euh, mairie de Dakar te di sant yàlla parce que tey mairie de Dakar am nañ tey opportunité mën a tey dalal ay gan dans le cadre de ce forum wante ñun waa mairie Dakar lu ñuy gën a rafetlu mooy opportunité bu ñu am pour mën a gën a sargal doomu aadama mën a fësal doomu aadama man na doomu aadama moo xam jigéen moo xam ndaw euh, nu ko waxee tubaab yi mooy indiwaat l'humain au cœur de nos priorités et de nos urgences et de nos politiques donc euh, économie sociale et solidaire su ma koy dégg nee naa ñi moom ñun dañ ci juddu parce que suñ ko doon euh, faram-fàccee ci gàttal mooy man mën naa ñëw dugg ci benn boutique ñoo jënd si benn bouteille Fanta dama nar a joxe benn bouteille bu vide pour am benn bouteille bu bees loolu yëpp ci xeetu économie sociale et solidaire la wala suma mbok di Malick Diop di directeur général ACPEX, yor ben Bayalam, ma yor suma boss. man ma yor fa ay ginar mom muy béy ay tomate ak ay salade ñuy joko lolu moy économie sociale et solidaire suñ ko mëne faram faté euh, mën nañ ko faram faté non wante dal am mbégte lool mëna and liggé ak gouvernement du Sénégal andak ak suñu jigen bu baax ji bu mën goor di madame le ministre Zara Iyane Euh, pour que Sénégal mën a am ndam parce que bii mooy euh, première fois euh, bu ñuy organiser forum bu mel noonu fii ci continent africain. tey dañ fi daje ngir mën a maanaam mottali kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci liy organiser forum mondial de l'économie sociale et solidaire forum boobu nag forum bu yaatu la boo xam ne réew yi ci àdduna bi yépp dañuy daje fenn bii par nag. gannaaw bi madame le maire Soham Wardini bindoon njiitu réew mi pour mu mën a présenter candidature u Sénégal ngir ñu mën a def activité boobu fii ci Sénégal mu nangu ko tey yàlla dogal na ñu ngi mottali liggéey boobu loolu ñu koy mottali nag muy ville de Dakar muy GSF muy RACTES muy plateforme bi ak muy ministère bi ñu ñëpp dañ ci ànd lëkkaloo def ci pas-pas pas-pas boobu ñu ciy def dañu gëm ne économie sociale solidaire bi nga xam ne président Macky Sall bi muy ñëw dafa ne def naa ko deuxième initiative nationale dina am njeexital ci jigéen ñi dina am njeexital ci ndaw yi dina am njeexital ci koom bi nga xam ne bëggal nañ ko askan wi te ñuy àndandoot di ko defadoon kon loolu bu fekkee ne askan wi rek a ko tax a jóg ñi nga xam ne askan bi wóolu nañ leen moo xam état moo xam ville de Dakar moo xam yeneen acteurs yi dajaloo pour ànd ci liggéey loolu lu jara rafetlu la tey ñu ngi ciy sargal bu baax le maire Barthélémy Dias ndax loolu gis na ko taxawee na ko doxee na ko waxee na ko kon incha allah ñun tamit état du Sénégal comme ni ñu ko président Macky Sall santé danañ taxaw ci wetam àndandoor def ci liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne euh, Sénégal rek ak réew mi ak askan wi ñoom ñoo ciy génn vainqueur